Assalamualaikum, suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di siar ba, di leen nuyu di am contenté ak mbekté ci lool <clears throat> ci teew bi nga xamné ni teewaat nañ ko seen émission Eutou Tawhidouna tey nag euh, li nga xamné mom lañ fi am comme euh, tout na bo xamné da daana ko ci réew mi la amé tay nak dañ ci gënoon bëgg gëna sori bu baaxa baaxa baax ndax jàpp nañ ni lu am solo ci réew mi ñu nekk bu nu ko nëbbee nag dana gën a indi ay jëye waaye tamit yaakaar nañ ne bu nu koy waxee tamit bu fajul tamit dana wàññi jëye yi muy def loolu nag bu nu ko waxee mooy dafa jëm ci diggante yaay ak doom ak diggante sàmba alaar goo xam ne yittam yépp mooy yàq doomu aadama li tax ñu wax loolu mooy dafa am ay wayjur yoo xam ne rawatina wayjur jigéen ñi dañuy faral di am ay jafe-jafe yu bari ak seeni doomi jigéen ñi mbaa sax yenn saa yi ak seen doomi góor yi lu tax ñu wax loolu mooy mbir mi nga xam ni xale jigéen bi nga xam ne moom moo ko dund moom la dal moom moo ñu indil muy problème boo xam ni ma nga tàmbalee ci wayjur bi ko jur ak bëggum alal ci wayjur li tax ñu wax loolu mooy wayjur yu bari dañuy dugal seen doom ci sëy goo xam ne ñoom seen intérêt bopp la sëy bi xale bi du ko bëgg wala sax lislaam du ko bëggee noonu waaye yaay ji ci boppam moom mooy bëgg sëy boobu am ndax ay intérêt personnel am lu mel ni teraangay àdduna lu mel ni may sa njaboot koo xam ne xamuloo ko li tax ñu wax loolu mooy xale bii nga xam ni ba nu koy maye mu nga am lu toll fukki at ak juróom benn nekk ci diggu ndawam nekk ci yoon yàlla nag daf koo bindee aw taar gu rafet waaye nag famille bi mu bokk wala yaay ji ko jur seen doole demewul noona xale bi nag baayam dafa teel a gaañu mu nekk ak yaayam nee na bi mu nekkee ak yaayam ci année yooyu mu am at boobu la ko benn waaye gis bëgg ko xam nga jigéen moom ala kulle alin bu ko yàlla maya taar ñëpp koy bëgg nee na bi ko waa ji bëggee torop waa ñëw seen kër ba muy ñëw nekk waaja sëfooru benn sëfër la boo xam ne dafay liggéey ci benn mbir boo xam ne mën nañ koo wax waaye amaana du bari solo lool waaye li am solo rek moy wax ki nga xamni ko koo dund bir boba waaye lu mën am dal na ngeen xamni waja waaja chauffeur la bo xamni kamuy ka yalla liggéeyal def nako taranga taraanga am lu tollu mat juromi auto nga xam tay day dawal bi sen ba top mu dawal benen benen mu dawal benen du ñak nak yenn saay li nane ku jégué jaay ko té parfum rek bu xéñé xéñalel la du ñak yenn saay nak kamuy ka diko jox yi taranga maanaam daal lu ñuy wax argent de manqué daal ci yaramam waa ji nekk ñëw na kër xale bu jigéen bi fekk fa yaayam ni ko xale bi raconté mu di ko seet si nee na ma daw ko saa su ñëwee duma wax ak moom mujj nag bu ñu sama yaay moo koy dalal comme nekk yaayam moo koy dalal waa ji moom tamit ma ngay incarné yaay ja ne moom patron la yàlla dénk na ko wërsëg te ndek yoo auto yoya muy dawal moomu ko sañsa muy def mom, amana moko mom waye ci liggeyam lay amé comme nek yaay yu bari dañu bëgg alal dañu bëgg taraangay aduna, dañ déni taraangay aduna, jaay sen dom mo leen ci génnee ndax ñu bari mayatuñ sen dom comme dom ja amna na ku bëgg amana yarul nga ne duma ko def ndax sama ko maye koko sama aju du faju ka nga xam ne kota ba bëgg ko ta xam ci mom bir nga ne ko tay nga bëgg ko par la force ndax man ma la jur bu fekke da nga bañ ak sama ak juróo daf lay dal nangam nangam bay mel nonu ba pousé xalé ñi dugg ci lo xamni lolay loolay waye waaye xalé ba du ci muccu ndax ya ja tàmbali na waa ji jox xaliss diko incarner ay matériel ay moyens ay ki beuté ba mu top xalé bi sonal ko torop torop torop torop waye xalam neena nak sa buñu waxe ñu ma bañ saa so waji ñe ma ma dakk ko ñàkk ko kers dem sama dem sama yoon waji nak mang koy menacer nan ko di nga sëy ak mom ci ni wala ci nile xale bi nak xeyna benn bis neena dama xey genn dem sama keur rakku yaay wax ak mom problème bi sama rakku yaay ne ma togal fi ci man ma ak sa yaay neena mu gisante sama yaay mu melni ñom ñoom ñaar danoo juboo ci kaddu ne man naa nekk ci moom ne nekk booba ñoom ña ngay sàkk ay pexe yu tax ma sëy waa ji nee na xëy naa benn jour rek ginnaaw ñu juróom benn weer ji dox ca biir loola ma xëy sama yaay woo ma xamal na ma daal may nañ la diw may nañ la diw daal nangam ak nangam nee nag mu ne ko du ma sëy ak moom waaye nag nee na ma ba may dem di jaxasoo ak moom di ñëw sama kër yaay waa ji di ma fa fekk bay àgg ci man nee na loolu lépp man xaw ma ci dara man gëj naa xam li xew ci sama dund keroog bi mu naan dañ la koy may ak duñ la ko may mënu ma nag ñàkkul ni dañu ma sëriñtu ñàkkul ni dañoo jëm ci man dara waaye man daal li tax ma indi sama problème fii ci yéen ci émission Ëttu Tawhidoona mooy dama gis luy law ma xam ne su ma ko bàyyee day gën di ñaaw nee na nag feex nañ ay pexe ba yaayam may ko waa ji nag am na lu mu toftal ci wërsëgam jox ko maire bi am lu ma ko woon lool daal moo ko maire bi lu mën a am daal may nañ ko maye simple maye biir néeg nee na ay bokkam yëg ca ku ne wax ca yaay daal xamal leen daal ne maye naa ko gis naa góor gu baax gu ko bëgg bu yàlla dénk alal dénk ko wërsëg muy am ku am ngor jurit la may naa ko ko xale bi ne na nag ba loolu amee ma nekk ak sama yaay ci biir kër gi parfois waa ji di fa ñëw donte takk na ma sax waaye su ñëwee dama koy mujj daw su ma xamee ni daf fii ñëw dama koy mujj daw mais nag dem na ba jamono waa ji jëflante na ak man premier sama premier tëdd ak moom ma am ci doom neen nag bi mu ci amee doom ci première weer ba tudd nu xale ba waa am na lu néew lu mu ca def waaye li ci gën a yéeme ba mu amee ñetti weer man ci laa gën a gis waajooju ak bët bi mu amee bi mu amee moom benn doom doom ji am trois mois te bi mu amee moom doom sax li ci gën a yéeme mooy day toog deux semaines yoo xam ne duma ko gis su ñëwee naan dama demoon séminaire rek dama demoon nangam ak dama demoon nangam ak dama demoon nangam mais nee loolu sax jaaxal ma li ma jaaxal mooy sama yaay nan la def ba mën a gëm koo xam ne xamul ay famem du ñu xamee ko ay oto yu rafet du xamee ko di ko may xaalis xamul waa ji mooy kan lu dul ni fii laay liggéeyee ak maa nekk nangam ak nangam neen sama yaay loolu la ci xam xamul waa ji fu cosaan cosaanoo xam ne mu jóge nee na nag ma nekk ci dund gu metti boobu nga xam ne maa ngi sama doom aw ma kenn ku ma dimbali balaa ma koy dégg wala di ko gis ñett semaine ba ñaari semaine dem na sax ba léegi toog naa trois mois yoo xam ne xale ba jigéen nee na gisul sax waa ji nee na saa bu laajee yaayam ne ko ana diw anaa mu ngi lay woo yaay ji ne ko man géej na maa woo ba muy mujjee woo daal neen dafa demoon séminaire dafa demoon voyage nangam ak nangam nee nag mu ana sama ngor rek di taxale dem naa ba commencé sax ne damay am dugg jaay ay fataay ak ma dugg ci mais daal yëf yi mën dem ndax sama yaay ci boobu ay moyens nee na mu nekk ci biir mettit boobu nekk ci moo xale ba nekk ci moo xale ba ba xale ba am lu toll ci at daanaka boo xoolee un am na doom ba mu am at ak genn wàll boo xoolee te nee mosuma musuma gis waa ak bët nee na xaw ma ko fa ma fa ma waxoo moom fa ma waxoon ne fa la yëngoon chauffeur la fa ba nu fa demee ca camp wax nañu ne waa dañ ko affecté woon foofu rek dafa ñëwoon ànd ak boosam boos ba dellu na dëkk bu ñuy wax fu njuñ li tax ma wax loolu mooy niñ jotee mbir yi ñun metti gi mu ñuy metti yàgg naa ko wax ni ni ni ñun moo ñun ñoo ñun lay gën a metti ci yéen muy mettee ci muy mettee ñun lay gën a lay moo gën a metti sax ko yéen ñu koy dégg ndax ba waaje bañ ko nee na nee ndaw si ne dem na fa mu nekkoon laaj ko ñu ne ko dañ koo affecté fu njuñ ñàkkatu fi te booba ndaw saa ngi woon njaareem dañ ko affecté waaje nekkatul njaareem léegi mu ngi fu njuñ nee na man sama yaay nag comme am na moom doom te gisatuma ko man du ma nangu yar doom joo xam ne xaw ma baayam soo liggéey mu may sonal man li ma bëgg rek mooy fexe ba gis ko moom mu may ma sama baat ba pare rek jël doomam ndax mënu ma bàyyee ci buum at ak genn wàll fasewu ma gisuma ko joxuma lu ma dundee maak sama njaboot xaw ma moom mooy kan duma ko def ba mu demee nag fa mu koy fañ fa mu nekkoon fañ ko xamee woon laaj na ñu ne ko waaja newatu fi ma nga fu njuñ ndax foofu la am soxna ndekk waa ji jubul ndax xale bu jigéen bi nee na ma bi mu may takk man dafa wax ne amul soxna wax na ko sama yaay ne amul soxna musta sëy ci mag moo xam ne dem nga ba am 42 ans 43 ans nga ne musuloo sëy fekk xale bu ndaw bu am 6 ans 17 ans nga takk ko kenn xamul foo nekk xale bi nee na ma jël sama doom ànd ak moom na xëy na damay dem damay dem Foundiougne wëri ko na fu ma xam ni fala ne fu ma la ma dem fa. mais jël na oto xëy suba teel fajar dina dem fi nga xam ne fa lañ ko wax ni fa la waa ji nekk dem na ba kër gi nga xam ni fa lañ ko ne fa waa ji am soxna nee na maa ngi fa àgg 9h mu nekk mbir mu fa gën a yemewaat foofu ndax nee na moom ba mu fa àggee 9h dem na ca kër ga ndaw sañ ko waxoon ne mooy soxna waa ji nuyu na ko ndaw sa defal na ko taraanga ndékki laaj ko ndax tànk yi mu wax ko ko ne ko man. dañ maa tel fii ku may wax ku ñuy wax diw doot ne ko waaw kooku de sama jëkkër la man fii suñu kër la moom fi lay nekk su ñëwee ci man ndaw si xamal xamal nu xamal ko ne ko ni man li tax ma ñëw fi mooy xale bi ma yor nii ki ñuy wax sa jëkkër di diw mooy baayam moo ko jur moo ma takkoon lu yàgg ba ba léegi gisuma ko nee na ndaw si may ma sax fu ma waxee fu ma waxee ak moom nee na àggalaguma sax mu indil ma coow indil ma jiñ ma càgg waxuma baat bu ñaaw bu nekk da ngeen jël jëkkëru jàmbur ak nangam ak nangam ak dañ doon ba waa koñ bu yëpp génn bu doon woon mboola ma fa nekk man la ma bëgg wax lu ma ko nee na moo xam ne sonate na ko yow kii la takk nii nga ne mooy sa jëkkër la am na ak yow ñaari doom man mii moo ma takkoon am na man benn doom ci laa ko bëgg a gis ndaw soosu xamal ko na ko man. amna ak man ñaar dom waye par 3 mois la fi ñew di dem ay mission wak nang nek lam wax ke la wax ki nek lam wax ke mom la wax ki mais nag da fekk aduna ki meuna dund li ak ki nga xane ne mënta dund lolu ndax ndaw si mom li bëgg moy ka ko mu di ko gis xamne mo moo dom ji wala sinon buy dem mu fassé ko mbaa mu bàyyil ko lu mu yore doom ji kii nak mom amna ak mom ñaar dom kii ma nga seen bir keur xeyna na ay loxom jot na ginaawum bu ko waajee fenee moom du du du fen ba du metti ndax mën a toog trois mois ay waajuram di ko jox muy lekk mais kii nga xam ne amul lool nag moom li ko li ko yitteel mooy nañ ko may baatam wala moom doom ji mën koo yor mu xam ne ko ni moom a takk waaye day toog 3 mois 4 mois du fi ñëw waaye dafa dem mission yi naw fi mbir ma yéem ko ba coow la ci la ñu woo rakku waa ji rakkam bu góor rakkam bu góor nag bi mu ñëwee moom moo xamal ñaari jigéen yooyu. lan mooy mbir mii ngeen di coow ndax bi mu ñëwee xamal leen leen nen kii ngeen di wax seen jëkkër la ñun ñi man mii sama mag la am na ay rakkam yu bari mu ne suñu kër ñun ñu ngi dëkk dëkk bi ñu naan tel waaye nag kii ba mu tàmbalee liggéey ba léegi bi mu ba ba tàmbalee liggéey ba léegi sama yaay jëloo tëg gëj a tëg bët du dimbalu yaayam du dimbali baayam ñun ñii di ay ay ay ay ay rakkam du dimbali du ñu faale top toptoowul yaayam moom dal samba alar la fu mu dem nak ci dekk mu mën fa nek ñu affecté ko mok bosam bobu mu nekk sëfëram dana fay ngoro wo fa mom nag du ndialo mais limi dafa gëna ñaaw ndialo ndax dekk bo dem wo fa yëpp fa patron ba may fa alal wala fa ne da nga ba tak ñu may la fa jigéen nga am fa mom ben dom ba ñaari dom ne fess dem sa yoon rakk ji nee na moom ne na ndaw si yow mii doo aawa te yow mii doo ñaareel ci leen takk nii yéen ñaar ñii yow mii yow yaay juróom-ñetteel soxna yu mu takk juróom-ñetti soxna yoo xam ne moom waa am na ko te kenn ku ne mag ak doom ba ñu xaymaa doom yi mu am toll na te ñaar fukki doom ak ñaar te ba fi may wax yoon nii waa ji ba nga dund dëkk bu mu dem bu dee mandat ba trois ans la wala quatre ans mu ànd ak euh, patron wom ba dana fexé fexé ba lijeenti fa jigen fexé ba tax ko am ak mom dom dem dana fexé fexé mom ba duggu ci dëkk boobu dajeeg xalé bu jigen bo xam dal daal yaayam dafa bëgg xaaliss mu fexé dal ba takk ko am ak mom ben dom ñaare dom bu yëf yo ya jeexee mu ni fetal daw dem na ba am juroom ñett jabar yo xamne ne ku ne tak na la dem ba am ay ñaar fukki dom ak ñaar léegi ne ndaw si mom liko tak tax te naxari ko lool boobu ba léegi ndax xale ba man déggu naa xale ba ci téléphone audio mu wax ak man fi may wax yéen xale ba am na 12 ans masta gis baayam yaayam loxoom jotul ginnaaw fi may wax ak yow yow nii ndaw si nee na ma ci boppam man dama bëgg a gis waa ji mu may ma sama baat wala moom ci boppam mu rakku ne moo ko jur mu di ko jox dundam la ilaa loolu mënta am moom wax na ma sax ne tànt woon na ngir yóbbu waaja ci yoon ndax ba léegi waaja mu ngi dund dem na ba ne ma soo bëggee ma jox la numéro téléphone waaja nga woo ko mu nekk acte barbari bu ñaaw boo xam ne li ko yóbbee loolu lépp nag yaay yi ndax mënoo nekk yaay jur sa doom sëy ba pare bëgg jël sa sëy doom bëgg koo sëy bëgg wax ki bëgg ak ki dul bëgg ndax sa intérêt bopp loolu lu ñaaw la suñu réew te dafee bari trop nag nanu baye xalé ñu tan nañu bëgg yow mi yaay nga baña juwar la ak njureel ak droit bi nga ne mom la am ci yow mais tay nga sey ak diw bo sey ak diw mere na la tay yow ka ngay dugal sa dom sa xamuloko ndax bar na xale góor xam ñanga ngay ma wax ñanga am ay auto ami moteur di dawal sa bu la gisee ñu yor dara fekk du du dara ndax valeur ci jikko la nit yàgg naa wax ne nit day fuuy nit bu fekkee fuuyul rek ab nit a dem di daal di manqué ndax li waral fuuy mooy nga xam ñi la meññ xam fi nga jóge xam sa cosaan loolu mooy tax ngay bajantu xam ne as gor nga mais bu fekkee lee ne da ngay xool nit te doo fuuy dangay mujj ñàkk xam sa mbokk moo tax faw nit ku ne mu xam ay mbokkam ndaw ci ne li bëgg moom ci gàttal mooy xale bu góor bi arrêté la muy def benn ñaar mooy mooy mu may ko baatam ñettil mooy mu fexe ba reconnaître ay doomam ay doomu baayu xale bi xam ne ay doomu baayam lañu ndax bu ëllëgee xale ba dund mën a jaar yoon lii moo waral xibaar bi ñu leen jàlle moom mu indil ñu ko ginnaaw loolu nag di ma ko yàgg waxee rek émission bi la ko tax a jóg du weerante du uññi suutara du gàccloo kenn waaye mooy fexe ba réew mi li di ñu fexe ba mu jub ano annoncé ko li ci baax ñu fexe ba wax ko mu gën a rafet waaye nag ngir liggéey bi mën a dem ci kanam bu leen di fàtte mukk la ma yàgg di wax rek ngeen abonné ci suñu sit bi numéro boobu nga xam ne moom mooy jaar ci écran bi ngeen mën cee woote indil ñu seeni tuuxi dina yi nga xam ne dund ngeen ko ak fu mu mën a amee ak lu mën a doon loolu dana tax lool liggéey bi gën a jëm kanam ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax ki nga xam ni du dañ mukk di bàyyi xel suñuy émission muy soxna ay satu di soxna yi foo di bàyyiwu ki nga xam ne moom mooy papa ibnu saa bu nu dugalee vidéo rek mu wax ci lu rafet wax dëgg yàlla bëgg nañ ci moom jërë ngeen jëf